ginnaaw accident bu métti bi nga xam ni moo daal di am niki tey si 8 janvier 2022 foofee ca diwaanu ñibbi moom président Macky Sall daal dina si yëkkati ay kàddu kàddu bokk na si muy naqaru bu baax a baax tiis bi nga xam ni moo dal si kaw waa Sénégal niki tey ak nit ñi nga xam ni ñoo daal di ñàkk seen bakkan ca boobee daal di àgg ca ñeenti fukki bakkan yu si mujjee ñàkk seen bakkan ak yeneen nit ñoo xam ni daal di nañ si mujjee am ay gaañu gaañu niki noonu moom Macky daal di tax mu ne dinañ amal deuil national sëgu mat ñetti fan nga xam ni dina commencé ni ki suba si 9 janvier ba tey moom Macky mooy wax mu ne accident yi nga xam ni jamono ji ñi ngi am si kaw tëri bi daal dina sakkan torop ba tax na dinañ si jël yeneen matuwaay yoo xam ni dina tax nit ñi seen kaaraange si kaw tëri bi gën a mat moom njiital Pastef bi di Ousmane Sonko tamit daal dina si yëkkati ay kàddu di am tiis bu baax a baax si soog bu métti bi nga xam ni moo am si Sénégal ba tey muy bokk tiis bi ak naqar bi ñi nga xam ni ñoo di seen i mbokk te nag jot na sëkk état bi jël ay matuwaayam bu baax a baax si accident yu bëri yi nga xam ni saa su ne ñu ngi koy dégg si Sénégal ndaxte kat accident yi buñ ko xaymaa si at yi ñu génn yëpp dafa mel ni saa su ne day gën a jëm kanam si ay junniy accident yoo xam ni saa su ñu ngi am te loolee doy état bi gën see jël ay matuwaay nga xam ni bu jeexul sax dina mën a wàññeeku nit ñi gën a am sécurité si kaw télé bi